jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak ci jotaay bi nga xam ne jotaayu koor lañu ko tuddee ci yoon nag nekk ñaareelu numéro bi euh, jotaayu koor nag ni ngeen ko xamee su ramadan daan la ñu nekk mu weeru koor bu sell woo xam ne euh, yaakaar naa ne lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu diine fës na ci lool waaye tamit lépp loo xam ne nag dañ ko daan def ci lu baax Euh, dañ koy gën a yokk looloo tax nag ñu concocté leen benn programme boo xam ne lépp dafay jëm ci fànn boobu tey nag euh, comme ni ma leen ko waxee woon ci ñaareelu numéro bi dinañu ànd ak euh, soxna Mame Fatou Kébé ndax ni ñu koy waxee rek la santé avant tout dina waxtaanee lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu wér-gu-yaram ak mauvaise habitude alimentaire yi nga xam ne c'est-à-dire ñenn ñi lekkee ak euh, benn taxaw seetlu boo xam ne def na ko ci wàllu wér-gu-yaram euh, dinañ ci ànd tamit ak soxna Asusila moom itam dinañu dikkal ci lépp loo xam ne nag jëm na ci koor gi comme ni ñu leen ko xewoon rek nga xam ne yëpp dañ koy jagleel lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu koor gi tey dina waxtaane ñi nga xam ne ay jafe-jafe la ñu am te jamono ji ñu nekk ay doomu aadama ba noppi euh, te itam di jànkonteel ay jafe-jafe ñu war leen di leen fàttaliku ci weeru koor gi loolee ci kanam tuuti lay doon waaye dinañ ci dalal ki nga xam ne nag moo sëriñ a Mbacke nekk jànkoot xasaay bu mag boo xam ne euh, ràññee nañ ko lool sëriñ Ismaïla dëkkee Touba bu soobee euh, njàng meek fa mu ca tàmbaleek euh, yooyu yëpp ci kàttanu yàlla incha allah rabbi dinañ ci ànd ak moom damay jox rek soxna Assousila mu nuyoo ak ñi xam ne ñoo ngi toog ci jotaay quoi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi képp ki nga xamante ni bi di 24 actu bi nga xamante ni moo ko nekk na loo xam moom mën nañu mhm. bi ñu la nekk moom itam dinañu ànd ak moom comme ni ma ko waxee léegi euh, waaye nag euh, ci sama wet euh, soxna Mame Fatou Kébé moom mooy borom jotaayu ndaanaan waaye tey nag moom jotaayu koor la soxna si man lay nuyu ma bàyyi la ñu lay seetaan waaw salaamaaleykum waa Ousseynou ñu ngi lay fay bu baax nga xam 24 actu point com di wax soxna Ramadan Mubarak bu kon ñu jox rek suñu gan moom mu nuyoo laataa ñu dugg moom ci ponk yi ñu fas yéene waxtaane sëñ Ismaïla Mbaye ñu ngi nuyu mu bàyyi la nuyoo ak ñi lay seetaan ci 24actu point com barkeb Seexul Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw mm-hmm. ah, noo ngi leen di nuyu mm-hmm. kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam mm-hmm. di nuyu bu baax ah, sëñ Ousseynou ñu ñu bokkal plateau bi nga xam ne lii lépp mooma ak soxna Astou ak soxna Nampal waaw <laughs> ah, di am mbégte lool ci bokk bokk bi nu bokk ak palaato bi di ñaan yàlla nañ ci am tawfeex Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp dara jël weeru koor nekk lu am solo Serigne Ismaïla Mbaye xam naa ci kanam tuuti dinañu dikk ak yow nga yëkkati ñu xasaay it ñu tàmbali waaye rek comme ni ñu ko waxee woon Mame Fatou tàmbalee lépp loo xam ne jëm na ci wàll wér yaram ndax wér yaram mooy lépp ci la ñuy tàmbalee euh, Mame Fatou tey euh, nga dikkal ñu ci lépp loo xam ne jëm na ci doomu aadama yi ni ñuy lekkee te baaxul ak jafe-jafe yi ca mën a am ak taxaw seetlu bi nga def ci wàllu koor yi waaw jërëjëf El Hadj Ousseynou Ndiaye tey jii dañoo dikkaat ci li nga xam ne loo xam ne jëm na ci wàllu wér yaram tey jii nag ñu daal dikkaat ci li nga xam ne moo di lekk ñu gis na seen i jàngoro ci estomac bi lay dooree ndax mooy dajale li nga xam ne moo di lekk gi ñu gis na sax ñenn ñi nañu lekk baaxul te nañu lekk te loolu dafay faral di ay jafe-jafe mu nekk nag loo xam ne dafay indi ay jafe-jafe yu rëy bu fekkee ne nag nañooy sàqamee mm-hmm. jaaru yoon ndax ndax xam ngeen ne leen benn koo ji gannaaw ñu sax ko ci li nga xam ne moo di grillage lu bon la ca ëpp lu bon la ca nekk wecc na li nga xam ne moo di euh, mm. juróom benn fukki cigarette mm. tey jii bu fekkee na tamit sa docteur moo la aaye li nga xam ne moo di yàqu mm. da nga koy daal di daw boo moytu sax nga bàyyi docteur ba waaw boo moytu da nga koy daal di daw kon ñu daal di fas yéene ñu daal di nag soññ ñi nga xam ne ñoo sàmmoon te wér gëram rek kenn ku nekk daal fas yéene aar ci sa bopp ñu daal def tamit li nga xam ne moo di taxaw seet li nga xam ne moo di ñëw ci jamonoy koor gi gis nañ ne tamit bëccëg bi dafay daal di tàng jër nga xam ne moo di guddi bi tamit dafay daal di sedd mhm. te am na ñenn ñoo xam tamit duñ gis ne dañuy faral di naan mhm. te naan googu tamit dafa nekk lu am mhm. ndax gis nañ ne ñàkk naan bi moom dañuy indil ay jafe-jafe yu bëri te tamit naan bi tamit ñàkk naan bi dañuy indi ay daal te surtout ngoon bi nga xam ne ah, daanaka bu nit ñi day sedd daanaka bëccëg yi duñu naan guddi gi tamit boo naan boo muytu mën na dañu yeneen jafe-jafe waaye ñu gis ne waaw surtout woor gi ba ngoon nga xam ne xam nga ne tey daanaka ngoon gi ngay mën a naan mm-hmm. ba diggante bi ngay tëddewaat bañ naan waajal na mm-hmm. mm-hmm. naan saa su naan lu mel ni a ah, si <laughs> koor gi mu mel ni teel na ko jàpp ah, soxna si jàpp si yow tam ñu jëm ci wàllu euh, koor geeg euh, lislaam waaw ñu nekk ci weeru koor di weer woo xamante ni mën nañ ne weeru promotion la maanaam weer la boo xamante ni mën nañ ne lépp loo ci ñaan suñu borom rek daf la koy nangul mm-hmm. mu nekk weer boo xamante ni tamit weeru ñaan la ndax weer la boo xam ne mën nañ ne moo gën ci weer ndax ci lañ wàcc alquraan karim te ci la li nga xamante ne mooy laylatul xadar di guddi goo xamante ne moo gën junniy weer ci la nekk bu nekk weer boo xamante ne bu am solo la ñoo nañ ciy fàttali ko tamit ñi nga xam ñi ne dañoo nekk ci dafa am ay guerre ñi nga xamante ne tamit seen i parents dañ leen am ba pare abandonné leen ak ñi nga xamante nekk ci néegi sëy ba pare am fa ay jafe-jafe ak ñi nga xamante ne tamit dañoo nekk ci prison yi ba pare te mën nañ ne maanaam seen sago yóbbu leen fa en même temps dañ leen nekk mhm. prison yi pare en même temps dañu la tooñ mhm. nga xamante ne mën na ne yenn feebar yi dal na leen feebar yoo xamante ne feebar yu métti la mhm. war na leen fàttaliku bu baax baax ak leen ñaanal rawatina li nga xamante ne moo di ci weeru bi ñu nekk weeru koor bi ñu nekk weeru moom yaakaar naa ne lépp tawfeex la euh, kon rek ñu daal di dugg ak euh, sunu gan muy Serigne Ismaïla Mbathie euh, Serigne Ismaïla comme ni ñu ko waxee rek saxaar bu jubee gaar day daal di corne mu bàyyi la rek nga dara balaa ñu dugg ci بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنت قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالك سكورا أكرمتني إكرام من ما سبح وكل ما أردته منك فعل آتيتني يا ربي من لدنك شكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في الحروف وخيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خادني تفسير والتكريم أتيتني ما خلب أنسى كلما مدى من الدر ما تسلما كفأني من ماله كفرنات بمعاني خريساخ كل من جات أكرمني بخلو اللوات ربي ولم يكن له كفوا أحد نجاني الله مكرم الصمد تناجيا بكواني الكمد وجعلي أكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد انصرم أسأل كونتي قصيدا خارقة العادة المفيدة يا يا خيوم سلم السلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن كلام سل وسلم ولتقبل الكلام من على خير إس الوروف بما يفوق السن من معروف لنعاسم الهروف خلد الرباب يا من كفى وسع الغرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم مسعسلا مسلما على مساسي الخلا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين macha allah astu yaakaar naa ne loolu moom ñëpp ko déggandoo euh, vraiment xol yi sedd na te ku dégg ni mu ko defee xam ne kii moom li muy def euh, lu mu mën la sëñ Ismaïla euh, sëñ Ismaïla ñu dikk nag ci waxtaan bi tàmbali ko ci njàng bi fan nga ci dooree ak kan mooy sëñ Ismaïla. jërëjëf Serigne Ousseynou. Mm-hmm. yooyu kàddu ak yooyu laaj danañ ci sawar lool. ñun mm-hmm. taalibe Serigne Touba. Mm-hmm. moom rek lañu. ah sunu buntu di Serigne Mbacke Bousso mm-hmm. Serigne Mbacke Bousso di maami Serigne Thierno Bousso mm-hmm. Serigne Thierno Bousso mm-hmm. di bàyyi Serigne Abo Bousso muy sunu Serigne. Serigne Mbacke Bousso di sunu buntu Serigne Touba. jaaree la ko ci Serigne Thierno Bousso. Serigne Mbacke Bousso mm-hmm. ak buntam di mm-hmm. Seexul Xadim mm-hmm. ak Seexul Xadim buntam di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi léppam gi sunu borom. wallaahi ah ñun taalib Serigne Mbacke. taalib Serigne Mbacke Bousso ci gàttal. voilà euh, nga tàmbali ci njàng mi Serigne Ismaïl. njàng mi nag mën naa ni. suñu Seydou dañoo xàmmee. rekk nekk ci. ndax yàlla dogal na ni sunu waajur. ah da daan yëngu ci xasida. naa tund Kajoor. ñu ci bari xam nañ ko koy wax bàyyi Serigne Mbaye. Hmm, kon da ngaa ci keppaaru jàngkat. waaw moom mën naa ne daal loolu. Hmm. Euh, euh, mbër yi di faral di wax. Hmm. <laughs> naan euh, xaalis xaalis làmb lañ ma génte waaye defe naa ne noonu. xaalis yu jàng xaalis bu xasida <laughs> moom lañ ñu moom la ñu géntee. wallay ku sañoon ñu géntee la ko tamit. waaw macha <laughs> allah kon soxna Astou ñu ci waxtaan bi bu fekkee ne. Eh, laaj yi sëñ Ismaïla mu bàyyi la question yi. waaw sëriñ Ismaïla ñu gis ne yaa ngi yëngatu ci li nga xamante ni moo di wàllu jàngu xasida mm-hmm. mu nekk loo xamante ni mën nañ ne lu am am solo la. Mm-hmm. ndax doon na loo xamante ne man ne suñu wasila bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul nekkoon na koo xamante ne ku ko fonkoon la mm-hmm. ndax daana wax naan li ma leen di defal li ma ko def ci alxuraan li ma ko def ci wér di sama xasida yi laa koy def mm-hmm. loolu ma ne xasida yi nekk na ay mbóot yu bëri yoo xamante ne am na ci biir mm-hmm. est-ce que yow jàng xasida bi nga xamante ne yaa ngi koy def bu am na mbóot yu bëri yoo mbóot yi nga xamante ne dañoo nekk ci biir xasida yi est-ce que yow yaa ngi koy gëstuwaale ko mën a xamal doomu aadama yi ah waaw loolu moom soxna si donc ci góor góor góorgóorlu suñu kemt laay kattan ndax kenn ku ne xam na ni baax Touba xasidaam yi hmm. ah lu ma am ci la ko amee muy tagg yonent bi sallallahu alayhi hmm. ah, ba tax na ñoo ngi ciy góorgóorlu bu baax hmm. ah, ci gëstu yi bu baax a baax a baax ndax ngir da dafa doon loo xam ne ku ci yëngu ah war nga war nga war nga gëstu bu baax ngir xam fi ngay teg sa tànk ngir xam fi ngay teg sa tànk suñu gis naa la tàmbali ci njàng bi ngay tàmbali ndax yomboon na waaw yombutoon nag ndax euh, suñu tàmbalim jàng mm-hmm. euh, jamono yooyu def naa ni nii mu demee nii demeewul demeewu ni woon. Ah, jamono yooyu. waaw jamono yooyu nii mu demee nii ndax boobu mi ngi nu fekk ci. Mm-hmm. daara ji. Mm-hmm. ñu boole ko di jàng. alxuraan di jàng alxuraan di boole di tarbiyo. ah euh, suñu doorteem jàng. loolu ñuy def loolu ñuy wax yëfi gone. daf noo dal ndax booba daara jooju foofu ñu def jumaay sëñ bi. fi la suñ genn daara yi newoon nga xam ne boo boo toogee ci daara yi. Mhm. forage su Daaru Marnaan bi mhm. génn kër moom moom moo. moo moo dox ci diggante bi moo newoon ci wetu ci wetu forage bi. li ko daggee foofu yëpp ab àll mhm. ab àll. ah ma dem ci ginnaaw daara ji di def yëfi gone di yëkkati xasida di jël boobu Fallou Ndiaye moo xew. ndeysaan Fallou Ndiaye di jël mm, bayit wi daane ko ci bayit wi. ngir bëgg gi rek. léegi sëñ bi. ne ci biir daara ji dégg ma. Hmm. daal ne kooku yi jàng kan la ñu ne ko kooku day hmm. Ismaïl la. Hmm. mu ne wóor leen ma ko. Ah, kii kat ku ko jàppale dana de. daal di woo Baye Ndiame ni ko am nga xasida rek moo waxee. mu ne ko wax naa ko mu ne ko demal nga indi nga nga woo ko nga sakko ko. man uh, bayit bu nekk. ni ma na na ko sax maa ngi dem Ndiaye waaye bayit bu nekk. nu sala na ko compter. ba xam bay bi nga mokkal boo ñëwee nga tari ko bay bu nekk naa la hmm? ci jamono jooju <laughs> ne booba ñu xale loolu dalay encouragé hmm. ku musaaraay jël ab dërëm bi teg ko ci sa loxo rek eh, eh, eh. maanaam da ngay defe ne yaa ngi àdduna hmm. lu nu am ci xasida moom la encouragé na ci ñu ñu encouragé ci njàng mi waaw bokk nga tàmbalee jamono yooyu nag Ablaye Seck. nga doon waaw jamono yooyu lay génn lay door di génne. Mhm. Euh, waxaanim boobu. Mhm. Euh, ak ak sikru la xam ak sikru la jamono yooyu mhm. euh, moom la doon roy boobu jamono. Ah, d'accord lan kon yow ñëw ñu tuxu fii. Touba. suñ borom dogal. jamono yooyu booba. xaadim bi ay ay ay ay sawam. ay sawam waaw moo nu gënoon a yomb. boobu ah, moo nu gënoon a yomb. moo gënoon a jàpp ni daal. te it euh, sama benn wëllëre. bu nekkoon njaareem. waaw dama daan yàlla damaa mayoon ku ma ku ma roy dem. Hmm. Fallou Ndiaye sax dama ko daan roy. Hmm. ah bi ma royee Fallou Ndiaye dem ba ma royee suñu Ablaye ñam mii dem. Hmm. mu ni ma dama bëgg nga seet ci jànkat yi kenn. nga roy ko. bu dee eeru aw booba rajo sax laa daan def. rajo rajo si Ablaye Ablaye Seck yi rek laa topp. ndax booba amaguma woon ay avocat. mu ne ma léegi nag da ngay fexe wut ci jàngkat yi boo xam da nga ko roy ndax. mooy tax nga mën a. mooy man ci fanaan ay guddi. waaye bu dee boo dee def baax boo dem. bu roy kee ba ni noonu nga dem ca kee. ci laa ñëw nag sama xel ne ci xaarim bi. waaw ma ma ma ma jël nga jël nga jël xaarim bi. waaw sëñ Ismaïla dañu gis mm-hmm. ko mm-hmm. mm-hmm. loolu euh, waaw loolu loolu daloon ci sëñ xaadim ndax euh, sëñ xaadim li ñuy wax ni dafa yaatu ginnaaw suñ borom daf ko may euh, fasaaxa ci xasida ci xasida yi te li may faral di dégg Serigne Saliou Niang waaw di ko faral di wax lépp ni sëñ xaadim bi école la waaw dafa bari ñu génne ci. ñoo xam ne ay produits suñu ah, xaadim lañ maanaam ñoo xam ne ci ñoom lañ. génne daal mm-hmm, mm-hmm. Euh, kon kooku. Mm-hmm. Euh, doo roy doo euh, di di di di di nëbb mukk. di nëbb ndax xaadim li li koy dikkal. ci ay programme suñu xaadim mënu mënu ko dajal. il mu am ñoo xam ne faaw rek <laughs> faaw rek mu am ci ñoo xam ni. dana jàng dana jàngi fële ñooy jàngi fële. te lu baax daa a te lu baax dafa war a yaatu. waaw lu baax dafa war a yaatu. waaw suñu xale yi suñu Ismaïla ñu gis ne am na ñoo xamante ne mën nañ ne xasida yi hmm. euh, dañ koy def lu mel ni genre benn mbubu bu ñuy sol rek buñ ko hmm. solee sol nañ ko buñ ko summee summi nañ ko hmm. ban jàngal nga ci am nga xamante ne mën nañ ne xasida daanaka benn cër bi ñu ko war a jox dëgg-dëgg fu leen neex teg fu leen neex nu leen neex dañ koy jàngee euh, loolu tamit ban taxaw seetlu nga ci am loolu day soxna si soxna Astou euh, suñu borom baaxee nañu ba nun tegu foofu suñu Eh, amaa nag yow war ngaa war a mën a yëkkate ay kàddu yoo xam ne ngir ñi nga bokkal tool bi muy xasida yi mm-hmm. sa wax ju rafet nga wax ko ca ngir ku ko dégg man caa roy mm-hmm. ndax Sëriñ Tuubaa sax la mi ngi wax ci biir naan wasilu bi laa xalwat bi kon nag loolu maanaam dafay confirmé que ne mm-hmm. xasida doon na loo xamante ni yow jëlu ngay mën ngaa bañ a yor kurus nekk di wédd wala nga nekk di wéet nekk di ñaan yéen ñaan mais jàng ko lu bari rek day am lu def ci doomu day soppi jëm sax. wallaahi ndax euh, xasida daa doon loo xam ni. Mm-hmm. Euh, ni nga ko waxee rek noonu la demee. Mm-hmm. ku ci nekk du mën a nuroo ak mukk ku ci nekk. Mm-hmm. ki ci ne. du mën a nuroo mukk ak ki ci nekk. tey boo boo ci nekkoon ak diir te dëggal. te lépp lépp nag sellal moo ko lay. waaw sellal gi moom mooy lépp. mooy lépp ci xasee waaw ñi nga xam ne suñ boroom <laughs> daa dogal ci ñoom. <coughs> ñu ciy yëngu. ba noppi maanaam di ci doxee neneen mm-hmm. dama jàpp ne ñàkk xam la rek mm-hmm. waaye ku xam dëgg-dëgg xasida mm-hmm. dund ko dëgg dëgg dëgg da nga koy jàpp da ko sellal da xam fi ngay teg mu nekk day rëddu rëddu mbusoobe bee fee ma nekk ñoom xam na kan mooy Ismaïla ci xasida yi voilà mu nekk loolu ma mën ci góorgóorlu. ci mm. sell. Mm. ak sell de. Mm. maa maa ngi ca. damaa koy digal képp koo xam ne. Mm-hmm. yaa ngi ci jóg. jàngat xasaay bi euh, mu nekk lu am solo xam naa ne euh, da ngay yëkkatiwaat dara. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla bu ko defee ñu daal di doog waxtaan bi ci yeneen question yi incha allah bisimilah bisimilah. bismillahi rahmani rahim. wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فقد جاكم بشير فاخ جميع الأنبياء ورسلي سيدنا أحمد حب المرسلين خدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترامي درائجة عبد الرسول الأحمد شيرة الأخيار قرا ممدا جاد النبي يوما ألست بجواب للخر فالكل أجاب بزواب أجز كل والد ووالدا أحمدنا الذي أولى خالدا آيات أحمد آيات من مدى ومن ياتي وفاقت ساس من كتابه كتب رسل المنسلين هوى والجهاد بخرا والنسل محمد عليه أفضل السلام مخدم بخير فعل وكلام بداية الماء نهاية الخيار على الورى سوى اختيار بداية الماء نهاية الخيار فقل له على الورى سو اختيار سيد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينغاد للمختار ما سواه فعله فضلا وقد هواه رسولنا فاخ جميع الرسل والأنبياء وهو الحبيب المرسل رسولنا فاخ جميع الرسل والأنبياء وهو الحبيب المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين macha allah astu Mbadou <laughs> da ngaa daal mën yaa ngi ñu <laughs> am na solo wax dëgg yàlla yaakaar naa ne yaram yi daw na te fi nga tàmbalee tamit euh, vraiment am na solo lool soxna Mame Fatou. Oh, waaw sëñ sëñ Ismaïla ma daal di siwaat ci fi nga daanee ndax nga def macha allah. ba xool xam ni nga rey xaalis bi mën nga ko waaye nag est ce que liñ ci am am nga ko ci coupe ji ni di ci dem fu sore yooyu ndax yaa koy def. ak programme yi. waaw waaw noo ngi sant yàlla bu wér. Mhm. noo suñu borom mi ngi nu ci defal tawfeex bu baax a baax noo ngi jàngi wax dëgg yàlla di ñëw mm-hmm. euh, noo ngi jàngi bu baax a baax di ñëw ndax jamono yee rek mm-hmm. lañ dem dëkk bu ñuy wax mm, kii ci ginnaaw côté cees moom suñu xaalis ñaari programme yoo xam ne moom ci boppam. Hmm. ñoo bokk programme la. Hmm. mu nekk lu am solo. ak tournée yi ngeen di def ci dëkk bi ak. ñu def ci dëkk bi. Hmm. di jàll a na ah, <laughs> li may waral di wax euh, sama gars yi lu bari. naan leen fanaane baas yombul. ndax li tax yombul mooy. Euh, lëkkaloo na ak coono yoo xam ni hmm. euh, ku suñu boroom baaxee hmm. boole la ci ñi muy liggéeyloo muy Seexul Xaddim hmm. kooku rek mooy ki ko man ndax da ngay da ngay gis ni biir baas da nga ciy gis ñoo xam ni ñoo organiser bis bi woola si nga toog di jàng te toog dong la ñuy def di déglu te ñoom dañuy sonn dañuy sonn da nga <laughs> ci gis ñoo xam ne sax dañuy mujj waaw dañuy dañuy xëy du mën a wax ngir coono kon yow mi nga xam ne suñu borom baaxee na la. Mm-hmm. Ah, nga ñëw toog. toog war a toog ay waxtu. di boole di yëkkati. ak di daane mm-hmm. ba bët set. Mm-hmm. kooku suñu borom baaxee rek. te ku suñu borom baaxee sëriñ bi dimbali la rek. yaakaar mooy mooy ki ko mën. mbaa gars yi ñu ngi joxe addiya ci base bi. normal maanaam woole ci programme donte xasaay comme ni ñu ko waxee woon si Ousmane. xëy waaye mbaa gars yi ñu ngi joxe bu baax loo xam ne daal. Ah, jànkat bi dina gën a mën a kii. waaw waaw loolu nag moom wax dëgg yàlla. Hmm. suñu borom na nañu ba sax fànn boobu. Hmm. dañ cee am koo xam ni moom lañ ko jox. Hmm. nga xam ne ku soxla si Ismaïla bëgg mu jàngal ko da ngay wax wax ak kooka. waaw kay ba ngeen dënk ji. boo nu jox la numéro muy Ablaye Waaj nga joxe njëgu gasoil. <laughs> moom dana mën waxtaan yow ni la ngont nangam lañ lañ koy lañ koy mooy xiwal ji. bu dee bisu fanaan nangam. nangam la. amaa nag. Mm-hmm. dana ci am sa wëllëre yoo xam ne. waaw bi nga demee ñoom noo xam ne da demee ñoom noo xam ni. Mm-hmm. ah dañ lay soxla. Mm-hmm. ah li ngay def mooy naa dem liggéeyal fi Serigne Touba. Mm, loolu la fa fekk nga xam ne nga xam ne. dëgg la mu nekk lu am solo moom. waaw sëñ Ismaël dañoo nemmeeku dafa am jàngkat yu bëri yoo xamante ni comme li mel ne li mm. a mm. dañoo gisee ne dafa am jàngkat yu bëri yoo xamante ne boo leen invité benn cant. ñu ne la cant bi kat cinquante mille nga gën a yokk seen grade. dañu koy naan cent mille wala cent cinquante mille. te def wala dañ koy def ngir ñoom noo xaalis bi gën a baree rek. est-ce que yow loolu moom nga ko euh, si euh, Euh, xañ na ci ci ci ci ci ci nit nit ñi la. Mm-hmm. ndax mbir mu nekk li ñuy wax ni suñu borom dafa bind. Mm-hmm. te yemale mm-hmm. ndax ni suñu baaraam yi mel. ci ñàkk gee tolloo. noonu la doomu aadama yi mel ci xal noon la ñu mel ci xel. ah man de sama jëmmi bopp maa ngi jàng programme boo xam ni. li ko li ko li ko bu matul fukki at. li ko jigéen li ko li ko manqué bëriwul. te mosuma leen a wax ni leen. nii laaj la <laughs> waaw waaw xasida yi faaw ñu gën cee mhm. duggaat bu baax a baax a baax. Mhm. ba neen ci maanaam wàllu jàng xasida bi rek. ndax mhm. bu ñu ko xew sang faaw ñu dugg ci mbóot boo xoolee ko tëddee Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul su demoon na benn moment. Euh, dafa digle woon ne maanaam euh, li xasida bi nga xamante ne moo bi. moom mooy bunt bi ndax jot gi mu amoon yëpp pour mën koo def si taalibe yi. amatu ko kon xasida googu rek mën na ne képp mën na ne da nga santaane ba ku ci yam di ko jàng rek Euh, lu bëree bëri loo xam ne wala soxla ci sëñ bi la dañ koy a am ba si mën nañ ne jamono yi nekkee njaayeen tamit am na benn bis mu génn du fekk mag ñi toog kenn ku ci nekk di waxtaan di werante naan ndax dinañ dem àjjana wala dinañ dem sawara hmm. sëñ bi daf la fekk ba mu yàgg mu laaj leen euh, waral loolu ñu ne ko ñun ko dañuy laaj ba xam dinañ dem dem sawara hmm. mu leen ndax mu leen ndax yéen a ngi jàng sama xasida ñu ne ko waaw mu leen samay xasida dem du dem sawara mhm. kon képp ku koy jàng da nga jàpp ne doo dem sawara mhm. euh, kon ñu bëgg tamit sëñ Ismaïla nga mhm. dugal ñu ci mbuuti xasida yi bu baax a baax moo xam ma waaxi bu naa fex moo xam ma xadamaat am daal moo xam dafa dara yi ndax du ñàkk tamit ay xasida yoo xamante ni yenn yoo xam ne da nga koy baaxee yoo xamante ni tamit da nga koy baaxee askan yi nga xam ne xëy na sëñ bi moom sept tonnes cinq cent li mu bind bari na mooy juróom dikk waaye xanaa benn rek wala yi boo xam ne maanaam gars yi danañ ko mën a baaxee loolu waaw wér la ndax euh, loolu nga wax soxna si dëgg wér la ndax mm, man sëñ Thierno. Hmm. suñ borom dogal na ni mos naa toog ak moom. Hmm. sëñ Thierno bu sa yàlla yàlla yokk ay leeram. Hmm. te taax na ci barkeem. te yàggal fi loolu xalifaam sëñ Abou Bousso ak mbooleem jabar gi yëpp. Ah, mu wax ma ni. Ah, xasida ak wakaana xaqan. xale naa nasarul moominiin. ah suñ ñëpp maase woon di ko jàng. kon suuf si day day sopp day soppale ko meew. suuf si waaw. wëlbatiku ni képp koo xam ni. Hmm. ah bëggoo manqué dépasse. Hmm. da ko da ko jàng. Hmm. toxfatul mutadarri'in moom tamit. moom dañ doon wax ni ku koy jàng. maanaam day defar wàllu wu yàqu. koo xam ni da ngaa nekkoon wàlli yu. foo tolloon ba am foo tolloon. maanaam saytaane man la. man la ba yàqal la loola. Mm. boo dee jàng toppatoo. Mm. toppatoo boobu sax si Ibrahima dund ma la ci mm. mais euh, ñu am ci firnde boo xamante ne mën nañ ne bu leer a leer la. boo xamante ne mën nañ ne chaque jour daan jàng ñu xamante ne juróom-ñaari yoon la ci suur bu nekk. mu dem ci benn euh, sëriñ boo xamante ne ma ne ñi ñuy wooyee saltige yi. nee na mu koy seqal ba yàgg mu ne ko yow mënumaa gis ci yow dara ndax. xaw ma dafa am loo làmboo looy jàng wala lan la. ndaxte mhm. boobu biñ ko xoolee ba ci biir. tufa bi nga xamante daf koo saxal saxal chaque ba yu mu nekk lu solo mu nekk lu am solo. Mm. Euh, dañu gis ne tamit ñu avancé xam naa waxtu bi li ci des euh, bariwul. Mm. gis nañu ne sëñ day def euh, li ñuy wax naaral. Mm. Euh, da nodd nit ñi di daanu vraiment mm. parce que dafa neex nit ñi. Mm. loolu nga mosal ñu ci tuuti rek naaral gi. bu mm. ko defee ñu barkeeloo ko rek ci weeru koor yi. laataa ñuy jeexal jotaay bi incha allah rabbi اهد جميعنا الصراط المستقيم وبسعي كلنا بلا لك كتاب يا غريب يا مجيب يا من به لا سمني خير عجيب عبلي وللذين قد تعلقوا المعبود والمهين دلتنا دلل دلتنا دلل دللتنا دللتنا ربنا واجعلنا سوة دين فإيقاد والتكفنا دمعا والبايقات وبيننا وثق مع الأولاد يا مالك الباد والبلاد وباركا بل بخير رد دورنا لنستجب يا خالق الكبار وجملة سقار أنت الباري وهب لنا سرية تديم الهم لس شالعة الهم للصالحة الحمل الصالحة الأمل الصالحة الأمل الصالحة الأمل الصالحة الأمل الصالحة يا قديم وحبلنا نور على نورين وذي أفسادة الدارين. macha allah macha allah loolu de moom dëgg yàlla a naa xol yi sedd na soxna su ma Fatou vraiment mu nekk lu am solo loo xam ne nit ñi dañ ko bëggoon di ko laajte kañ nga ko tàmbalee def naaral bi ak inspiration bi fan la jógee sëñ Ismaïla. xam naa xam naa lu war a toll ci ay ñeenti at yooyu. Mm-hmm. fan la jógee da nga toog ba yàgg mbiri dikka la wala gis ne naa la ni ñu koy defee yow tamit. man ni man a ni daal naa naa naa ci jéemantu. Mm-hmm. Ah, sóobu ci mbir mi daal moo waral ma di ko def. mais ñu gis ne dafa neex nit ñi dañ ñu koy laajte dafay bari lool léeg-léeg buñ la déggee nga koy def ci jàkka ji. Mm-hmm. nit ñi dañ koy laajte lu baree bari. wallaahi wallaahi euh, ñoo baax rek. ndax. Euh, lépp loo xam ne dafa tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. dafay am fasaaxa mhm. euh, xam naa naaral boobu noonu nga xam ni mhm. moom la euh, waa kër yonent bi sallallahu wa sallam nga xam ni mooy arab ji ni koy jàngee xam nga xam ni ku koy déglu rek da nga am yëg-yëg xam naa li tax ma koy roy ci xaside Sëñ Tuubaa yi di ko jéemi loolu moo waral moom nit ñi nit ñi di jàpp yëg waaw moom mu dugg nit ñi ah. voilà mooy jërëjëf euh, Serigne Ismaïla Astou ma yow tamit ma jox la nga tàggoo. Mm. laataa ñu joxaat Serigne Ismaïla ak ñi xam ne ñoo seetaan jotaay ko yaakaar naa ne. Mm. jotaay bi moom bu ko toppoon mën naa <laughs> gën a yaatu. waaye xool seddam te incha allah rabi fas nañu yéene a na jotaay bi moom am na solo macha allah. Mm. di mm. nga xam mm-hmm. ne mm-hmm. yi nga xamante ne yëkkati na ko fii. Mm. di mm-hmm. yaa ngi bàyyi xel ci 24 actu yi rawatina émission bi nga xamante ne moo di jotaay ko di sant Fatou Kébé ak ñi nga xamante ne ñooy jàpp ci caméra bi ba mën a yem ku mel ni Seexna ak Moussa Sine Fallou mm. ak Khady Niamé xam ne moo jàpp ci montage bi di leen di daje ci beneen jotaay ci seen émission jotaay koor yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf soxna Assou soxna waaw jërëjëf ñu daal di yëpp ñi ñoo xam ne moom lañ ko bokkaloon nekkoon ci caméra bi mooy Seexuna ak ci montage bi di jox dig daje ci beneen émission jotaay ko jërëjëf sama montage sëñ Ismaïla mu mel ne nag jotaay bi jeex na xam naa ma rek nga tàggoo sant gërëm bu ko defee ñu daal di jotaay bi incha allah ba beneen incha allah. gis naa tubaarikàlla mm. jërëjëf Serigne Ousseynou. Mm. waaw sunu xol seet na bu baax. Mm. Euh, ci jataay bi. -hmm. ndax euh, mën nañ ni suñu ñëwutoon ci lii. -hmm. ñu ngi ci leneen te lii dara da koo kariwul. ndax euh, yëkkate genn kàddu. taalibeeb Serigne Touba. bég ca rek. Mm-hmm. tiyaaba ji kenn xamul nu mm-hmm. kon loolu ndegam suñu borom dogal na ko ci yow mm-hmm. jaare na ko ci yow. ñoo ngi lay ñaan baax suñu borom yokk la. te barkeel liggéey bi. Euh, te yeggale yéen yi. ñoo ngi ziare bu baax soxna maam Astou mi ak euh, soxna maam Faati. ñoom euh, ku gis seen jataay bi nii. xam ni soxna su baax. fi mu war a teg tànkam rek yéen ngi fi teg seen tànk. kon noo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale leen mm-hmm. te defal leen ca barkeb mm-hmm. soxna jaaritulaahi ba mm-hmm. euh, ngeen tibb ci ba doyal di siyaare ministère bi ñi nga xam ne ñoo ne man euh, di toll dina gis-gisin wa gën. Hmm. muy caméraman yi. Hmm. ñoom it ñu leen di siyaare leen ñaanal yàlla na yàlla jàppale leen. Hmm. te yàggal fi lool Serigne Mountakha. ba lépp lu mu yéene liggéeyal Serigne Touba. mu liggéeyee ko ca ko soobee. danaa nu ko moom. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon topp 24 ci seen jotaay bi nga xam ne euh, jotaayu koor la ñu ko tuddee mu nekk jotaay boo xam ne nag euh, lépp rek dañu koo jagleel ci koor gi ni ngeen ko gisee rubrique fi jot a jàll yëpp muy lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wér-gu-yaram bi ci koor gi la waaye tamit lépp loo xam ne jëm na ci wàll diine gi ni ko soxna associé la dafay itam lépp rek daal di allah euh, bi euh, lépp loo xam ne ci wàllu diine ñu fësal ko bu baax ba ñi nga xam ne euh, fu ngeen mën di nekk rek di ci mën di jot ñu sant baax nag tey suñu gan nekkoon Serigne Ismaïla Mbaye nekk jànkatu xasaay boo xam ne ràññee nañ ko lool vraiment itam ñuy koy gërëm ci oyof gi ndax ku ci nekk xam na ne jot amut euh, te kilifa ku mag la ak euh, programme yi ni muy bëree ak xat-xati jamono yi waaye loolee lépp terewul euh, suñ jëm muy xeebu yi dafa bàyyi li mu jàppoon yëpp ngir ñëw waaye tamit ngir ñi nga xam ne itam ñoo koy seetaan te di ko bëree loolu tamit mbégte lañ ci am bu baax a baax te ba ñu la xamee ba léegi baax lañu xam ci yow kon ñu ngi sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal li nga bëgg ci xasaay yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal euh, sant Cheikhouna Ndiaye mu nekkoon ci caméra bi Serigne euh, ak sama gars yi ci yëpp ak euh, soxna Khady Niang mi nga lépp lu ngeen ci gis ci montage bi bu baax rek <laughs> ma njukkalee ko ko ndax man damay xuloo moom waaye vraiment soxna Khady mooy jàpp ci montage bi ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm di leen jox di daje incha allah yeneen i jotaay koor balaa yàgg incha allah.